liquider ko yàgg na ci ñu élection il a volé de vote génne fi ay imbécile ñuy wax ay waxu dof sénégalais yi ne teg mu mu wax fi ak ay kilifay diine ñooñu naan bul taal dëkk ak bul taal taalal mais du ñu déglooti benn kilifa diine nañu synchroniser kilifa diine bu leen ko wax néew ma leen ngeen saaga kenn ub leen seen rajo fay leen sànni fale parce que kilifa yàllaa ko teral man ngaa am nag ay kilifa yoo xam ne yembuñu seen xel yi ànduñu ak seeni xel man nañu am lolu ci société day am toujours été day indi ay kilifa yo xamné peut-être sen kali ñu peut-être ñom sen kali fi mu tollu moy sen parce qu'ils vont servir quoi encore deux ans trois ans quatre ans cinq ans de leur vie ils meurent c'est tout lolu qui xaar mais nous, dañu am suñu futur am suñu ay futur. Nous, ñun duñu ay setu maam Malik. malgré pour nous duñu ay sëtu maam sëñ Touba malgré pour nous ñun duñu du mënuñu mënuñoo roy mënuñoo euh, maanaam euh, euh, naka laa ko mën a tuddee ci wolof kàddu wolof bi maanaam mënuñoo mënuñoo hérité mënuñoo hérité ay toolu milliards mënuñoo hérité ay milliards ñun amuñu loolu ñun suñu bàyyi ay simple citoyen sénégalais lañu ñun ay simple citoyen sénégalais lañu suñu bàyyi donc ñun nañu jàmmarloo ak Macky Sall de ki toog ci si jaadam wala ki toog ci biir néegam ne génn leen bu leen taal dëkk bi kooku alalam rek lay sàmm sàmmul sénégalais maa leen garantiral loolu ñun nag Sénégal la ñuy sàmm ki toog ci si jaadaam wala ci biir néegam ne ah bu leen taal dëkk bi kooku alalam la bëggul nga taal mais ñun Sénégal lañuy taal taal Macky sàll ak ñi ko gëm ak ñi ko wër bu boobaa ñu xam ne Sénégal seen bàyyi moomu ko ñun dinañu libérer Sénégal ñun dañuy libérer Sénégal ku ci sa alal tak bu boba xamna am nga ay milliards pour nga défarat ko amul problème mais les jeunes je vous appelle à la rébellion il faut ñu won Macky Sall suñu bop buñu ñu dellu buñu hésiter buñ ko may dara buñu may Macky Sall ben ben centimètre bu ko ko sénégalais may bu sénégalais may Macky Sall ben centimètre billahi wallahi tallahi ma len wax li li ma len di wax nak gëm len ma bu ma ko waxe taalibe lay wo woo ci bopam 90 des taalibe xamnañ ne Macky Sall respecté wul diine yi respecté wul tarixa yi ñun gone yi lañuy wo gone yi gone yi ñun ñom lañuy wo ku gëm Seigne Touba xex bi sa xex la ku gëm Mam Alhadji Hadj Malick xeex bii sa xex la ku gëm Sénégal xex bi sa xex la ku gëmul xex bi rek yow tu es un traître national lolu moy deug ndax ku bëgg Sénégal ku bëgg Sénégal. billahi wallahi tallahi xam nga ne Macky Sall respecté wul sëriñ ndax Macky Sall bu fekkoon respecté na sëñ Touba mu respecté xalif généraux yi naka la Macky Sall di toogee ba quelques jours des màggalu Touba mu ne day passé benn projet de loi boo xam ne moom leer na ko leera bi yàlla ne Sénégal dina tàkk Macky Sall li muy proposé moom xam na ne bu ko taalee Sénégal dina tàkk léegi moom seetu ci dara ñim ci àndaloon démb naa fekk yi daan génn kii salafiste laak kii reykatu nit laak daggkatu bopp laak wala bëggul màggal ak léegi ki bëggul màggal xam nañ ko parce que defe naa de bu ma déggul dégguma ci benn rajo Sénégal boo xam ne Ousmane Sonko nee na màggal bu mu am ki Sall waxu ko mais jëfee na ko donc defe naa jëf ji moo ëpp solo wax ji parce que moom moo jëfee loo xam ne dafa bëgg mu indi problème ci màggal gi parce que moom xalaat na ci biir xelam ne xaaral ma tombe ak màggalu sëñ Tuubaa bi comme ça ma jaxase màggal gi ak doomu aadama yoo xam ne ñoom ñoo war a génn xeex loolu la bëgg te billaahi wallaahi tallaahi ñun dinañ ko def parce que ñun dañu gëm yàlla gëm nañ sëñ tuubaa mais xam nañ ne sëñ Touba bu ko fekkee woon tey day ne na màggal bi tëj jubbanti leen réew mi ba pare te ñun réew mi la ñuy jubbanti ba pare bu réew mi jubbanti ko ñu dem ñaan si sëñ Touba sëñ Touba ñaanal ñu billaahi wallaahi tallaahi on va faire face à Macky Sall wallaahi billaahi tallaahi bu sénégalais yi toogee ngeen seetaan. Buli jalle, buye bu yeboo ngeen xam ne que Sénégal ci buumu njaam ngeen di dee ba àdduna tukki man de Tunkara peut-être dootuma fekk ak bakkan man dina fekk ma dem waaye yéen ñi ci des njaam ci ngeen di dee njaam njaam ba àdduna tukki y'en ci njaam ngeen di dee. parce que Macky Sall il a pris cette décision déjà moi en le connaissant le traître qu'il est il a déjà avisé la gendarmerie et la police qu'il va passer ce projet de loi il y a 17 000 gendarmes et police 17 000. Il y a 15 millions de Sénégalais. On peut les arrêter dans 10 minutes. 10 minutes, maintenant, peut les arrêter. L'heure a sonné. L'heure a sonné. 10 minutes. Wallahi, billahi, tallahi, maintenant, arrêter gendarmerie, arrêter police, arrêter ñep maintenant. 10 minutes. 10 minutes, on peut les arrêter. On peut les arrêter dans 10 minutes. Billahi, wallahi, tallahi, maintenant, les arrêter. li Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bu ne nee bàyyi leen sax taal leen dëkk bi bu ko deglu. parce que il est il est quelqu'un qui aime le Sénégal j'en suis sûr et certain que il ne vous dira pas de brûler le Sénégal mais nañ ko yàq defaraat ko nañ ko yak jàpp Macky Sall ak ñoñoom bu boobaa ñu defaraat dëkk bi kon naka montrer à Macky Sall que nañu woon Macky Sall nañu won Macky Sall rébellion marche musul am Sénégal ay 23 juin ay 24 juin ay 25 juin lolo du ay marche ay caaxaan Macky Sall liy ñëw ci yow mësa koo gis ngelaw bi lay waaj a upp nga dof mi ngi ñëw ngelaw bi lay upp yaag Marème Faye Sall ngeen dee wallahi is coming sénégalais yi dama leen di woo comme ni ma leen koy defee toujours cette fois-ci c'est pour sacrifier nos vies pour Macky Sall parce que comme Macky Sall xamul buur saay na ñu ne ko buur dee na bu ñu may Macky Sall benn centimètre bu ñu may Macky Sall Ziguinchor Kolda Sédhiou Oussouye Bignona Kédougou euh, Tamba kaulak na lepp synchroniser nañu taal lépp nañu tal gendarmerie ñu tal police yi ñu jàmmaarlu ak 17 17000 rek lañu ils sont seulement 17000 y a 15 millions de sénégalais bu ñu may Macky Sall ben centimètre après adduna bi dellu siwaat wax ak ñun ils vont nous respecter dinañu respecter Rwanda mi ngeen gis mu baax tay Rwanda jékki-jékkiwul baax doomu aadama na ñàkk bakkanam du dara ku ñàkk bakkanam wallahi billahi tallahi ci jihaad fi nga jëm moo gën a neex fi ngay jóge xam nga loolu la leen nit ñi du bugg du yee dañu leen ne waaw bul dee boo dee ci li nga jëm billaahi wallaahi moo gën a neex ci li nga jóge billaahi wallaahi tallaahi Macky Sall bu dee dafa bëgg a njaamuloo ku ci dee wallaahi billaahi tallaahi lazim wallaahi billaahi tu vas au paradis wallaahi Dieu va t'amener au paradis wallaahi billaahi ku dee ku jaay sa bakkan Macky Sall billaahi wallaahi tallaahi paradis nga jëm loolu mooy lileer bu ñu may Macky Sall un centimètre ñi yaakaar ne danoo feebar bu leen len bu leen wax ak ñoom ñoom dinañu comprendre après kan moo feebar ñi yaakaar ne dañoo wéradi bu leen wax ak ñoom ñoom dinañu comprendre après kan moo wéradi ñi yaakaar ne ñun gëmuñu Sénégal wala dañ ko bëgg dinañu comprendre ndax ñun ñoo fuu wala ñoom ñoo fuu li ñu intéressé ñun c'est le Sénégal on n'a qu'à faire face à Macky Sall et sa bande de bande de voleurs et de fous parce que Macky Sall ma wax leen dara li muy sàmm j'espère bien que xam ngeen ko j'espère bien que li dal Macky Sall xam ngeen ko bu pare mooy il a volé assez sàcc na bëggul kuko bëggul ku atte Macky Sall li muy def yépp xam nako. il a volé assez sàcc na ba sour, sàcc na lekk ba sour moog rakam bu doomeeram bobu. borom bi ñetti biir yoyu. Macky Sall dafa satch ba sour. wallahi billahi barki Dembo Ndiaye bi mu ñëwé Amérique avec le patron de BP fexé nañu bañu am rencontre Macky Sall ci boppam xam na ne il sait que mais rencontre bi dafa dem ba hiirab maanaam kàddu yéeg dépassé parce que xam nañ ne daf leen wor patron biip yi xamoon nañ ne Macky Sall dafa wor Macky Sall ak rakkam ak Aly Ngouille Ndiaye doomeeram ñetti doomeeram yi gën a bon ci Sénégal ñett ñooñu ñoo bëgg jëlaat Sénégal parce que tout simplement ku nekk ngi bëgg sétal setal taatam ndaka ngeen ma mëne expliquer un Aly Ngouille Ndiaye qui a volé les élections du Sénégal ku luubal ay élections Sénégal Yak Sénégal domam bi ko yobé bitim réew mu jangi ingénieur pétrolier la jangi ingénieur u pétrole la dem jangi parce que essence pétrole génn na Sénégal il faut ngeen xamné cette fois-ci patriote aduna bi yëpp dañu wara a synchroniser ak fo leen mëna nekk ci aduna bi dañu wara synchroniser ñun ñëpp ñu doon benn projet de loi ou pas projet de loi ou touche à son co on te mange à vie Dagn koy lek Macky Sall bu leen ko sanni ci géej bu ko jox jën yi daggate leen ko ngeen seddo ko sénégalais doomu kharam mais ce mec il ne respecte pas les sénégalais sénégalais yi Macky Sall daf len respecté wul Macky il ne vous respecte pas dafa respecté wul sénégalais Macky Sall dafa respecté wul doomu adama limuy muy lijjanti mom ak njabotam ju ndaw joju nu ñuy daw génnee Sénégal loolu moko jaral sacrifier le futur du Sénégal pourquoi attraper Sonko ou quelqu'un d'autre pourquoi les empêcher xana yow do gor xana yow do gor xana yow do gor xana Macky Sall du gor xana Macky Sall lui n'est pas un homme xana mom du gor Macky Sall xanaa du gor xana Macky Sall du gor Boudé Macky Sall pourquoi pas Sall du tout ce qu'on demande c'est les Sénégalais tout ce qu'on demande c'est les Sénégalais prenons nos responsabilités nous jël suñu ay responsabilités man loolu lay wax man lijjantiwu ma lu kenen wax lijjantiwu ma partisan ou ou wala partisan ou kële j'en suis sûr et certain que nos partisans tous les partisans de tous les partis politiques sont contre ce que Macky Sall est en train de faire ndax dara gënul neex bu dee yow góor deug nga nga jamarlo ak góor ne mako dañu dem ay élections yu lèr ma gañe maintenant vous comprenez que toutes ces élections étaient des manipulations Les yéen a ngi koy comprendre donc nous ak yéen Sénégalais bokk naqar sénégalais yëpp a bokk Nous nañu génn nañu nakar. nañu génn parce que lii buñ ko bañul tey wallahi billahi tallahi lazim même yëfu doomaraam bii moo ñuy dalaat suba lii suñ ko bañul tey billahi wallahi lazim noo suñu sët yi même sëtu Macky Sall yu doomeraam yi nii lañ leen di continuer def Sénégal nag mën nañ ko arrêté mën nañ ko arrêté mën nañ ko arrêté on peut l'arrêter c'est pas trop parce que nee naa leen bu ñu sax xaar man bu doon man bu dépendroon ci man ay kilifa laa am donc munuma dépasser kilifa yi mais suba dinañ len jox date mais bu dépendron ci man tay ci goudi lañuy commencer tal palais bi duñu xaar sax pour projet de loi passé parce qu'on le connaît déjà bu dépendron ci man tay ci goudi la sénégalais yi di tal palais bi duñu xaar sax suba billaay wallaay tallaay y a des fils braves du Sénégal Yo xam duñu nangu Macky Sall fontooñu te on va faire face à lui billahi wallahi tallaay bu commencé won bu doon man rek man bu doon ci man la dépendre tey ci guddi lañuy dem attaqué ji Macky Sall duñ ko xaar ba suba di toog ci république dëkku démocrate yi ngay jël dëkk bi di ci def sa yëfu doomeraam ku la neex nga jàpp lu la neex nga buum buum mi naa fekk yi toog di leen déglu naa yi naa fekk yi toog naa fekk yi toog di déglu tous les naa fekk di déglu di sourire nag fi ñu toog yaakaar na yéen a ci nekk Ouais, da ngeen fàtte le Sénégal génération bu bees la il y a une nouvelle génération am na génération bu bees bu Sénégal comme ni ma leen ko le lépp c'est synchronisé comme ni ma leen ko d'où du ma jéggi ñi nga xam andal ñoom laa àndal ci xeex bi ñun ñëpp ñoo koy waxandoo incha suba suba suba suba incha rabbi incha allah rabbi incha rabbi والله بالله تالله العظيم والله بالله تالله العظيم والله بالله تالله العظيم دينا ني جامارلو اك ماكي سال فوالا لي بلير بلير لير ان شاء الله ربي سوبا دينا ني جامارلو اك ماكي سال سنغال ييب لاي yéen ñëpp dinañ wax ak yéen dinañ wo sénégalais fu mu mën doon dinañ wax ak sénégalais fu ñu mën doon il faut ngeen xamné l'histoire nous reviendra li responsabilité la ci doomu sénégalais bu ne ne leen bi jël seen dëkk bu baax bi diko tourner dëkku njaam fo len newoon en 2019 ay doomu sénégalais ngeen tok on a tous les intellectuels du monde

wallahi dem len ci licc bi jox len ko lo len man set wallahi bu weron wallahi Sénégal du demeni si Abdou Karim gay était guéri ben domou adama la il perturbe tout ce pays Macky Sall daraam bettu xam ngeen bu len waxe yenn say bo waxe sénégalais duñu comprendre mësuma bëgg yegg fi parce que c'est toujours un banditisme après un autre mais je me dis Nakala la euh, Karim Wade ma ne coïncidence mu japp Khalifa Sall teg ci mu coïncidence mu faagaagal ñep ci élection yi mu coïncidence Abdou Karim Gueye dem marche ñu duggal ko kaso ci ëllëg sa mu génn mu coïncidence Ousmane Sonko il n'est pas qualifié pour les élections rétroactif dañuy indi loi bu rétroactif bo xamné ne day dellu ginnaw pour lan galko. ko lool yépp coïncidence la Macky Sall il est magnifique toutes les choses qui qu'il fait ça se passe par coïncidence yi ngeen toog ci seen kawlal yéen xanaa xamu leen ne yàlla iblis la ñu indilaat ci àdduna bi xanaa xamu leen doomi xaram bi iblis a ko jur xanaa xamu leen kii iblis ay baayam kii seytaane moo ko jur Macky Sall seytaane moo ko jur doomu xaram bi kii du nit di is not human te sénégalais yi ngeen di xool xamu leen ne lu yàlla sàkk kii moo ci gën a sadik ci àdduna bi kii moo gën a sadik lu yàlla sàkk moo la gën a sadik ki Sall lu yàlla sàkk moo la gën a dëgër xol parce que bu jabaram di maye ay deux mille ba jabaram ay ñaari junniy nag lay maye Sénégal ay gàmm ñaari junniy nag xam ngeen ñaari junniy nag yooyu li tax mu koy may ay sarax la doomu xaram yi gëmuñu dara gëmuñu yàlla gëmuñu dara ngeen toog doomu àdduna bi doomu sénégalais yi ñu leen di déglu non la loi va passer loi ban loi bi bu koy teg assemblée nationale assemblée nationale xanaa xamu leen ay juróom-ñetti fukki doomu xaram yoo xam ne turu Macky Sall la ñu bind rek toog dañuy toog nga liir xamuñu seen numéro taat sax xamuñu ko dañuy toog def nii croiser les bras yenn saay sax nelaw bu dara jotul ba ñu passé loi bi ñu ne nii soulever les mains pour passer la loi nous ñep doomu kharam yi ñu nous te xamuñu sax loi bi lu muy tekki xamuñu sax loi bi lan lay tek doomu kharam yoy de ces bâtards qui sont assis dans ces assemblées xamuñu sax loi bi lu muy tek doomu kharam yi ñëpp ay gor lañu doomu xadi 90% c'est des pédés ces bâtards bah, c'est Moustapha Nias. Le plus grand malhonnête du Sénégal, c'est Moustapha Nias. Le plus grand salaud au Sénégal, c'est Moustapha Nias. Domou sénégalais yi di toog di seetaan ngeen di toog di seetaan benn domou xaram di ñu décider lu war xew Sénégal ngeen tok di ans. bu jékki-jékkee tey mu lak trésor Macky Sall il utilise le Sénégal comme un film kilifa diine yu bari mënuñu lu nelen, euh, leen euh, na jàmm am ci bi mais c'est un message C'est un message. C'est un message. C'est un message qu'il nous lance. lan nga bëgg kilifa diinay def jóg leen taal leen dëkk bi mais déedéet loolu du waxu kilifa mais nag yow bu fekkee góor jigéen nga yaa ngi toog sa ginnaaw lalu yaay wallahi billahi tallahi azim billahi wallahi tallahi azim nga xam ne billahi takki woo dara Sénégal di takk ñuy taal suñu ay yaay di torturer suñu ay dom di torturer suñu ay sepp Macky Sall ñeu pour yak Sénégal ben domu xaraam rek ben domu xaraam duma ko ko tout couleur parce que du couleur Macky Sall c'est un animiste mom manam bu doon am na xeet tey doomi xaraam la xeet bi di tuddu Macky Sall du nit Sénégal yëpp diko ko dégg tout le monde l'écoute ñun ñëpp ñu tok bés bu ne mu indi loi bu bess chaque jour mu indi ben loi bu bess mais toujours coïncidentalement loi yëpp da koy arrangé moom te moom moo gën a tilim ci senegal un fils digne du Sénégal un fils du Sénégal que le Sénégal a tout offert Macky Sall moo ko jox lépp billahi wallahi tallahi doomu baadoolo doomu jaaykatu gerte naka lay jékki-jékkee doon président de la république du senegal bu dul yërmande la ñu dawal ci dëkk boobu senegal yërmande lañ fa dawal yërmande la suñu bayyi dawal yërmande la suñu mami dawal ñu ne na ñëpp bokk waye dëkk ndeke bu ko jox baadoolo baadoolo nak dikki ñak alal baadoolo ci xel la Macky Sall ni mu maggé il est il a grandi rancunier son frère Aliou Sall a grandi rancunier aduna bi yëpp di leen déglu ils ont grandi rancunier di saraxu di yelwaanaatu ci kër yi di lijeenti dépenses pour sen yaay jund c'est ça la réalité c'est ça la réalité Il bi a di ko setan. Aduna bi di len ñun ñep ñu di xol xew ñu rek projet de loi projet de loi pour l'homme. pour setal Macky Sall ak Marème Faye Sall ba ñu set wicc Gatcha bi jabaram Amérique mom la bëgg a ci ñu parti partisans au Sonko ñoko Amérique mais partisans Sonko y avait le PDS y avait la l'APR même à na APR à na ñep à na ñep ñep y avait tout le monde il y avait tout le monde à na ñëpp il y avait tout il y avait tous les partis politiques présents parce que déjà dem nañ ba wax len ko nenañ len FRDS FRDS kan mo ci bokul kan mo bokul ci FRDS y avait tout le monde FRDS nord Amérique, c'est le Front pour la restauration de la démocratie au Sénégal. Il y avait, le parti Réumi, il y avait le parti de Malik Gakou, il y avait le parti de Abdoul Mbaye, Abdoul Khader, Woutal, ça permis, Allah. Il y avait le parti de Khalifa Sall, il y avait Khadige Abdoul Khader et ses membres, il y avait Pastef, il y avait tous les partis politiques. Et il y avait les patriotes. ñun ñoo génn Dakar leen te di te buñ ko waree recommencer à mille fois dinañ la Dakar cent mille fois Macky Sall day xaru Macky Sall he's committing suicide lii daloon na fi président Libéria bu fekkee yéen may dégg yàggul dara daloon na fi président Libéria Dalon na fi président yenen rew. Dalon na fi ay président ay président mënuñu len compter duñu diex jami. c'est c'est c'est c'est comme c'est comme de de de de c'est comme des jardins de de de chier en Afrique ay doomu Harami, yi amuñu diplôme yu bax, amuñu diplôme yu dëggu doomu xaj déjà c'est des menteurs parce que man doomu doomu adama amna intégrité yu mënul yu mënul nek ci yow ba ngay don c'est pas possible Macky il a trahi les Sénégalais. Macky il a trahi les Sénégalais. Mais il pense qu'il a été traumatisé. Il n'a pas été traumatisé. Il sera traumatisé cette fois-ci. Une fois pour toutes. Macky Sall traumatisé. Macky Sall, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, c'est le Sénégalais, c'est le président qu'on doit pendre par ses culs. Wallahi billahi tallahi. Je vous dis qu'il y a 17 000 soldats au Sénégal. Si nous engagons, on peut attraper Macky Sall. On peut attraper, billahi wallahi man Kodiap. ko japp. vous si passez projet de loi il n'est pas qualifié à être président au Sénégal. Donc maintenant, ce qui veut dire on est déjà on est prêt à l'attraper. Macky Sall passez le projet de loi bi, wallahi billahi man nañ sous japp. Macky Sall loi bi wallahi on peut l'attraper wallahi on peut l'attraper Vous passez l'ouabi, billahi y avait des plus grands dictateurs que lui au monde et ils ont tout été attrapés et traduits devant leur peuple. Macky on peut le traduire devant le peuple sénégalais. Saddam Hussein était plus puissant que Macky Sall. Barki Dembo on l'a pendu, il a été pendu. Kadhafi, il était plus populaire et plus puissant que Macky Sall. Mais quand on est prêt pour lui, il était pendu. Il faut donc au Sénégalais On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de soutien, de voisins, ni de militaires, ni de rien. dara. Non, on n'a besoin de rien. dara. Tout ce qu'on a besoin, c'est de faire face à Macky Sall et l'attraper et le pendre par ses culs à l'estade Demba que sénégalais yep gisko. ko billahi wallahi tallahi bu le ko ça sama dit ak le président boo Sénégal dina le sénégalais mais tu ne peux pas avoir un président cochon comme ça es bu suba bu ñëwee bummi ginnaaw suba keneen ñëw saaga manqué respect ñeneen ginnaaw suba keneen ñëw sa saaga manqué respect ñeneen mais kan ngeen yaakaar ne la loolu di deñ loolu ñun ñoo ko mën a dindil suñu bopp respect yow yaa ko mën a établir sa bopp respect soo ko laajee doomu aadama joxula ko yow yaa ko war a fokkati tagal ko sa bopp sur la table bul ñaan doomu aadama respect boo doxee ci biir mbedd tu vas te laisser faire par un malhonnête Tu vas te laisser faire par un imbécile Il faut leur demander, les, partisans de Macky Sall, qui pensaient qu'ils sont protégés par euh, euh, euh, euh la loi diplomatique aux États-Unis. justice, c'est un diplomate, il a ses documents. il a un statut diplomate, et eux tous ces salauds ces góor qui ont fait ces malfaits, ils vont faire face à la loi. Nous ñëpp on va les traduire devant la loi parce que dëkk bii fii ñu ne dafa am loi yéen dëkk bi ngeen nekk bien vrai que loi bi dañ ko loubal, mais am na loi Tay boo leen jàppoon Macky Sall sama digënté ak Yalla ak yonent bi magistrat ñaar wala ñett yi jubadi dinañ dellu ginnaw le procureur bâtard de la république Bassirou Gueye wallahi dina dellu ginnaw parce qu'il va savoir que these people are not playing anymore but it takes effort day jël effort it take il faut que doomu sénégalais yi xaar il faut que doomu sénégalais bu ñu cette fois-ci seulement ñu won suñu doole caay-caay yi nekk Sénégal buñ l'en may dara bu l'en len may dara bu l'en len may bu len len lebal comme ni ma ko kuy sa keur wallahi billahi julil ñaari rak comme quoi que tu ne vas pas revenir waxuma ko pour dara vous allez tous revenir c'est des poltrons mais man ma la wax li julil ñaari rak Ngamel nga melni ni yow do dellu si nga jéggalu Yalla parce que ak bu nek nit ku nek yow sa digganteeg yalla rek la loolu moy deug mais li ci des bu len len falé ne les écoutez pas. Boulen len falé. Il faut savoir que vous, vous nous ñoo wara ñun ñun ñoo mëna arrêter Macky Sall. Wallahi billahi pour la première fois dans l'histoire wax na len ko lima ma ak yeen yépp ñun matna. Macky Sall gis ngeen ko l'humiliation de sa vie il l'a récupéré aux États-Unis. Macky Sall fu nek ci aduna bi dañ koy humilier fu mu dem ci aduna bi il va recevoir le feu que les Sénégalais le savent man comme ni si Sonko est la la solution du Sénégal ou pas ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est un citoyen sénégalais un citoyen lambda un citoyen qui n'a rien fait de mal un citoyen qui a un bon caractère un citoyen qui veut être président du Sénégal Sonko n'est ken len Sénégal de est-ce que coup d'état la fait indi Sonko dafa dafa femme armée il n'a pas d'armée il n'est jamais armé, il est humble et respectueux. Il parle avec tout le monde si ils avaient, comme s'ils avaient 100 ans. Sonko buy wax ak xale sax day wax ak yow mel ni kuy wax ak kilifa dina le dégloo xelam dina répondre xelam wallahi billahi talla. et j'ai eu ce privilège bi ma demee Sénégal j'ai eu le privilège à le rencontrer avec respect laaj ko vraiment lan mooy xalaatam ci Sénégal fan la jëmale Sénégal wallahi billahi tallahi he's a wonderful wonderful human being so that's the human being we fighting for not not the person Sonko who's going to be president of Sénégal wi don't care about that Sonko bu nekkee président loolu sénégalais ñoo koy décider bu nekkul président sénégalais ñoo koy décider que Sonko gagne ou qu'il perd ça me fait ni chaud ni froid je vais toujours manger mon même manger ce qui nous dafay nekk candidat présidentiel bu Barthélemy Dias sax sànne ko ci ci trou bi suba ku ko laal ñu taal ñun dañu dul mayati gis nga Macky Sall wallahi billahi tallahi bu Selbé Ngom munoo bëggoon nekk président de la république sax ça c'est son problème ñun suñu yoon nekkul ci ku bëgg a nekk candidat ñun li leer ba leer mooy Macky Sall dafa dul doom bu tekki dara bay wara décider ay élection Sénégal ak kan moy nek candidat ak kan moko dul nek ñun jaral nañu sacrifier suñu vie on va sacrifier tout ce qu'on peut lepp luñ ci mëna def dinañ ko ci def té mom lèr nako lolu lèr nako ki ñuy Macky Sall mi ñu xam mom xam na né li ñu wax yépp dinañ ko def liñ ko dig yépp dinañ ko def ba mu mat parce que ñun duñu ay góor jigen comme mom tout ce qu'on promet wallahi dinañu fulfill promesse li lèr ba lèr moy doomu sénégalais lañuy waxatal encore bo waxé ñu ne leen état dafa am doolé wala état amul doolé ki am doolé c'est le peuple il faut savoir que pouvoir bi ci peuple bi lay revenir xol len tay bi ñu Sénégal rek finale Coupe d'Afrique c'est tous les primo-votants c'est tous les enfants du Sénégal qui aiment la liberté d'expression et qui aiment la démocratie yena bila billahi suba bu len ken tàggu suba dinañu woote inshallah dinañ ko yeglé fep ci Sénégal ndaje bi du suba mais suba dina ñëwaat encore ci live bi wo même heure demain à la même heure je viendrai sur ce live et on va donner l'alerte partout dans le monde Nous synchroniser ñun ñëpp ñoy gennando Faites-le un jour de repos je dois travailler je dois manger des bananes pense à ton pays Faites sa réew ben jour manul yak manul on va faire ce qu'on va faire et on va donner les idées exactes et on ne va pas bouger duñu bouger ñun buñu yalla yobbo fi ñu wara dem duñ fa joggé tant que Sénégal amul liberté tant que jotuñu ay téléphone né le Sénégal est libéré wallahi billahi tallahi masiba naaru laay rek ci la dëkk voilà li am importance comme ni ma leen ko waxé c'est pas moi la personne Faguera Ba me parce que man comme ni ma leen ko waxé sama waa kër ak sen waa kër ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sen dundu yalla ko yor yalla mo yor sen dundu yalla mo yor sen bakkan ñun nañu comme nañu nañu ñun nañu concentré wu rek ci Sénégal c'est yàlla mooy ki am doole du doomi aadama ñun concentrons-nous sur le Sénégal ñun nañu concentré wu képp ci Sénégal may ñaan ñëpp comme ni ma leen ko waxee sama xarit yi wallahi billahi mille quatre cent personnes ñaanal leen Abdou Karim Gueye yàlla yëkkati ko ci jàmm ak salaam yàlla fëgg boppam ngeen continuer donner ci licci bi continuer leen maye ci lici bi continuer leen def ay ay don ci lici bi continuer leen may leen ko ci lici loolu demul ci benn doomu aadama ci Abdou Karim Gueye rek lay dem ak santeem benn doomu aadama nekkul ci affaire xaalis wala affaire on n'est pas dans ça nous seulement pour libérer notre peuple du ñu may benn benn centimètre duñ ko may Macky Sall benn centimètre et demi duñ ko ko may buñ ko may sax mu yeggali ay kàddoom nee leen su dépendre ci man suba la dem attaquer Macky Sall wala tay ci Goudi. duñu xaar sax pour mu passer projet de loi bi parce que bu boobaa sénégalais dañ ko may lu bari. On doit l'arrêter même avant qu'il n'ouvre sa bouche. Si quelqu'un te menace de mort, ne l'attends pas qu'il n'attend pas qu'il t'attaque. Parce qu'il va te tuer, parce qu'il t'a menacé. Macky Sall a menacé la vie de tous les Sénégalais. Parce qu'il nous dit que mon les mécontents et les méchants que je vais choisir, qui vont me servir et servir moi et ma famille, et oublier vos familles, c'est eux qui vont continuer à être des candidats présidentiels au Sénégal. Lolo Mantanek. Macky Sall baye momom Sénégal. Macky Sall baye momul Sénégal. Macky Sall amul ben membre de famille bo xamne ñoo mom Sénégal. Amul ben membre de famille Macky Sall bu mom Sénégal voilà ngeen jéggal Il y a quelques clochards boo leen gisee ma bloqué bloquer rek comprendre ce qui nous intéresse nous c'est le Sénégal Nous, le Sénégal nous suñu fierté Lolo, ku ko neex nga gëm ko ku ko neexul loolu sa problème la ku neex nga and ci ku neexul ça c'est un problème personnel ce qui nous intéresse nous c'est ce que le Sénégal avance mais c'est pas à ce que Macky Sall nous dit qui sera ceci et qui sera cela Nous ñun liñ ko sénégalais yi ko sante ñi ko fal ak jinné parce que fi mu né mom avec 58% de ce Sénégal que je connais 90% des sénégalais ñu ngi saaga Macky Sall 98% Koku dix naka la mané am 58% des votes Non nous mu mënee nek, man nous koo comprendre. moi je ne peux pas concevoir à ce que ba ça sama xol bi j'ai une haine te wallahi je vais yàlla bu ma dimbaliwul dinaa dee ak haine bob j'ai toujours cette haine dans mon cœur pour me dire que man xamnaane je suis conscient et je ne suis pas connu comme perdant man xawma sama connu comme perdant suis dugg ci luy échouer man comme comprendre ne man Ousmane comme jël na sama carte comme et j'ai utilisé ma tête avant de jeter ma carte te xamnaane connu ci les plus intelligents du Sénégal par exemple je suis dans les dans les 90% des sénégalais intelligents Manam ci 90 si, manam, yi maanaam téeméer bu ne 95 ko ci may parmi les personnes intelligentes te xam man personnellement daanu ma def ay erreur ci de vote daanu ma def loolu ñu jël suñu ay carte sanni doomu sénégalais yep di gis un vagabond un vandard qui n'a honte de rien du tout mu ay sa doom Macky Sall bi ngeen xamee ne déjà c'est une déception mooy bi mu mënee jël ay xale yu ndaw di leen dulloo Macky Sall bi mu jëlee ay doomu jàmbur yu am cinq ans di leen fenloo di taxaw ci ay président turki di taxaw ci ay kanamu président di duul ci ngeen mën a xam ne doom yaram jooju mënul gérer réew nit koo xam ne amul gàccey fen doomu kilifa ay doomu kilifa koo xam ne amul gàcce duul Macky Sall amul gàcce fen kooku day toog ay sëriñ di leen fen di toog ay ay président mu leen di fen di toog ay xale yu ndaw mu leen di fen naka ngay xoole sa moroomu doom bu am sa ay moroomu doom yu am six ans nga leen di fen yow nga ne non non non yi dañ ma bañ mais moi je suis un menteur un une personne qui n'a pas de respect pour son peuple Macky Sall xaj moo ko gën sénégalais yi may waxal xam ngeen li may wax Macky Sall golo golo pun bi am gen mo gen Macky Sall un chien un chien dans la brousse gen domi kharam jojo jooju wul dara mais man ma len wax li sénégalais préparons-nous cette guerre vient de commencer billahi wallahi suba di ngeen ma dégg ginnaw suba ginnawati suba bu ci yalla àndee li xew comme niñ len ko waxee compter les jours buñ ko woyé dañ koy synchroniser ñun ñëpp dañuy ci aduna bi Macky Sall xamul force ndaw xamul xamul lolu. il ne sait pas la force de la nature Mon xamul force nature xamul force nature xamul li nature capable il ne sait pas xam ko mosu dund Macky Sall limu dund moy sàcc ay millions yu bari ñew tok sàcc ay élection nek président xamul nature xamul amour sincère parce que musuko dal parce que Marème Faye Sall bi muy top Macky Sall dara la ko topé même dara boobu bi ñu toppantee même dara boobu la ñuy dundee xamuñu lu sincère they don't know what unconditional love is and what we have for our country is unconditional love te billahi wallahi comme ni ma leen ko waxee my six year old can tell you who Ousmane Sonko is boo ko laajoon kuy Macky Sall xam na rek ne sàcc la et c'est un dictateur adduna bi yëpp xam nañu loolu tu sais que mes enfants par hasard dañuy jekki jekki té man waxuma len ko duma def live sen kanam je ne parle pas devant eux da di toujours Macky Sall dictateur ndekete ñom partout dans le monde ils savent ce nom ils savent que ce bâtard de race c'est un dictateur xam nañ ko vraiment aduna yépp xam nañ c'est un méchant cette personne elle est méchant nit la ku bonne soular fen moy katu ray katu nit lepp capable Macky Sall yan sénégalais duñu toog ñun du ñu toog bëgg leen firndeel Macky Sall li muy def de jour à jour parce que yenn saay dañuy dem ba dañuy dañuy ne ñun bugguñoo soof suñu mbokk yi bugguñu leen soof Macky Sall li muy def boo ko bindoon ci cinquante dictionnaire du ci xej il est il est plus Sall moo gën a malhonnête lépp loo xalaat ci àdduna bi nee Iblis Limurawe Makisal Macky Sall rek Dieu l'a donné un titre et l'appelait Iblis Lolo rek la rawee Macky Sall Macky Sall bu ko yàlla waroon jox titre ken xamul lu mu koy jox cette mauvaise personne c'est des personnes de mauvaise foi Macky Sall lan la défal Sénégal ban sénégalais mo mën taxaw nga bindou ko nga bindou ko ne Macky Sall li la défal Sénégal Macky Sall amul dara lu mu massa passé lu mu massa défal defal Sénégal lu normal amul kenn ku ko mën a tudd au contraire il nous a amené des malhonnêtes indil nañu ay doomi xaram ay doomi sàcc doomi sàcc yëpp feeñal na leen tey ci suba damay wax ak sama benn kilifa duma tudd turam wallahi billahi mu may wax waxu velingara dama doon dawal par hasard sama téléphone sonné ma jël mu ne ma Ousmane ma ne ko waaw mu ne ma lan moo euh, yaa ngi si jàmm waaw euh, mais qu'est-ce qui se passe ma ne ko lu xew mu ne ma est-ce que xam ngeen lan moo xew Vélingara ma ne ko ah, ci sama yaakaar yaakaar naa ne xam naa mu ne déedéet xamuloo ko mu ne xam nga ne Vélingara hôpital bi ngeen fa bàyyi ba léegi moo fa nekk mu ne Vélingara wuuri bayloo ak doomu xaraam yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk tey di jéem a gérer réew mi lu dul ay tëdd ay jabaru jàmbur ay poubelles yi ci place de l'indépendance bi la ñuy sànnee poubelle léegi léegi moom li mu def day dem xooli jabaru personalité dëkk bi yépp mu séq ak ñoom lu bon di leen may ay terrain di sàcc terrain réew mi di yàq suñu dëkk bi loolu rek la fi nekk wallahi sama xol bi mi ngi baax pourquoi ne peux-tu pas faire partir à la politique Le Sénégal dafa une politique bu man je ne suis pas politicien moi je suis patriote ce que je suis c'est quelqu'un qui se bat pour que les politiciens soient présents au Sénégal politiciens yi mun a mun a xeex li ñu nekk ñun loolu lañ fi politiciens. ñun on n'est pas des politiciens ñun du ñu yàqkatu ne ñun pas ñu yàqkatu du ne bàkkaar pas ñu sommes alalu c'est ça la réalité c'est des sorciers ces bâtards ay sorciers lañu billahi ay ay les lañu tous ces députés yenn sénégalais Macky Sall mom pas passé projet de loi bi pas ce projet parce qu'il y a ko fekkee ba koy passé mais sénégalais yi bàyyi vraiment je ne veux jamais insulter les sénégalais du mënuma saga sénégalais sama xol mayumako. mais vraiment au moins réveillez-vous au moins au minimum réveillez-vous Le rek du saga, je ne vais pas vous insulter mais yeewu leen parce que député doomu xaraam yi fi nekk bien yéen a fi man je ne sais pas comment se fait-il que nit nga mën tanal sa bop keur gu rafet nga mën tanal sa bop auto bu rafet nga mën tanal sa bop jabar ju rafet mais mën lo tanal sa bop député bi lay may jàmm mën lo tanal sa bop député bi lay may jàmm yak sa lolou man ta am haaw Amérique bi mané man man man Amérique ça m'appartient pas mais xam Lumaitan, lu may ak c'est ça la réalité xool rek dem leen boo exemple bu ndaw ngeen xool ci live Bi, Ni, Saga. bi Habib par exemple Kopatibi. bi magla? Qui du xale xool Len. leen boo waxee tey ñu ne saga. mais c'est ça les réalités non mais mais man munuma Wallahi, ah, ah, sister comprendre na xamna li ngay mais comme di ma ko waxe man man sama caractère moma mayul parce que mon caractère me dit que dans ce pays il y a beaucoup de personnes qui sont illettrées il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éduquées dans nos élections am y ñu bari gens xam sont tey nit ku xamul beaucoup mu xamul boo ko ci saaga ko y a beaucoup d'hypocrites quand même am na ñoo ne mais il faut que sénégalais yi Macky Sénégal bay décider c'est ça la réalité nit du ñew pes sa yaay sa bir kër ne la non pardon dem lolu ne bor ko nangu nit ku ñew sa yaay yaayam ci poubelle bi pour wan ko ne ya ko gëna mais attendez lan ngeen bëgg lan vous voulez quoi mais quand même ay waxi kessé buñu talé live 10 000 personnes ñeu dans une minute 10 000 personnes c'est ça la réalité buñu talé 10 000 personnes ñeu mais buñu woté doomu sénégalais don't comprendre like you don't understand ne comprenez pas. Adam yenn saa da ngay bëgg joyal jooyal Sénégal nga ne est-ce que mérité nako yenn saa da ngay gis ñu def sénégalais lula lula metti da ngay xol sénégalais di dund lu metti lo yow day génné sa ay rongoñ ngay joy mais lo ci man mais nañ ko bayyi nañu bayyi Macky Sall boudé par exemple tay sénégalais yeen nangou ngeen Macky Sall bi pour une fois wallahi billahi tallahi lazim man de man personnellement à ma personne soit mort ou soit parle plus parce que man nga baña man nga bëgg dé ñom bëggu bugguñu laa rey mais bu boba man do leen ma déggati moi je ne vais plus pour bagarrer pour un sénégalais loolu àdduna jaralatuma ko bu ñu bu ñu wallahi billahi di déglu Macky Sall mu jëlat li suñu dëkk billahi wallahi tallahi man duma waxat ak man duma waxat ak sénégalais moi, dans ma vie, je vais, je vais repartir là où j'étais. Parce que j'étais en paix. Man mangi ngi ci jàmm. xeexu Macky Sall bi bi mu commencé ak léegi. wallahi li ma ci ñak ci énergie wala xaalis wala temps xaw ma nu mu toll. je ne sais pas. mais nit nak mënoo ko bëggal lu mu bëggalul bopam. Macky Sall bu ko sénégalais mayaté 5 cm. Taluñu ko taluñu wa kërëm. bu boba ma xamné rek lepp lu may defati naa ko defati seul mais pas avec les sénégalais pour ngeen defe le euh, théâtre la bo xamné dañ ko am rek dina continuer pour benen deux ans trois ans déedéet Macky Sall c'est maintenant qu'on doit l'arrêter Légui lañ ko wara arrêter parce que buñu joggé c'est suñu constitution may nañu président buy def haute trahison tay sénégalais yi génn jamarlo ak n'ont ñu été. mu dugg palais de la république lolu automatiquement li xew dinañu jël décision bu bees automatiquement nous i de créer ben temporairement pour six mois ñu créer ay élection but Macky Sall must go Macky Sall must go sénégalais come on man lolu du slogan Macky Sall must go lolu du slogan c'est pas un slogan c'est une réalité c'est un must xam nga luy must en anglais it means must go must de the Ouais, yo. « must il faut dafa dafa falloir dafa faire dem c'est ça la réalité Tout lo xam ne dañ ko wara négocier du lo dañ ko wara le Sénégal n'est pas à négocier non mais c'est ça la réalité mais c'est ça la réalité Abdoul Abdoul Djang. c'est ça la réalité give me Libéria, give me that mais c'est ça la réalité so mënul may nit liberté au moins rey ko c'est ça la réalité nit billahi wallahi t'allahi. su la mënul may liberté au moins deewal bo deeyee dee bu gaaw lay doon mais di nga dem aljana mais c'est ça la réalité munu leen am paix munu leen am paix non non non Maria non je refuse je refuse sénégalais duñu def dara non moi je ne suis pas malien je suis sénégalais te ñu ngi def dara every day we will no we will sénégalais duñu def dara peut-être sénégalais yëpp duñu def dara loolu mënuma ci dara mais sénégalais duñu def dara je suis sûr et certain que man xam naa ne aar li ñu bokk aar li ñu bokk déggu de aar li ñu on ils sont prêts aar li ñu ils sont prêts à sortir et ils sont prêts à faire face à Macky Sall mais ils vont sortir aar li ñu bokk dañuy génn les la ñu mais nous n'y payons tous les sénégalais vont sortir non nous n'y dañuy les les amul Les amours jigéen man anyway jigéen ni la gën parce que moi je connais que les femmes sénégalaises c'est des lions man anyway jigéen ni un euh, euh, chapeau à vous amin hein. chapeau bi dama ko solo waaye bu mako ko ci les femmes sénégalaises talata indère m'ont changé histoire au Sénégal allez le lire les femmes sénégalaises sont les plus braves góor jigéenu sénégalais yëpp dañ leen war a solal pantalon góor ñi nag comme ni ma leen ko waxee du ma manqué kenn respect mais les daam sénégalaises sont des dames de fer jigéenu sénégalais kenn gisul fu ko nit yabee mais mais attends quand même boo xoolee même ci live bi you see that the women are not the problem my problem is my fellow German sama sama xarit yu góor yi lay waxal mais jigéen ñi aw ma ñoom problème les femmes sénégalaises Tu les vois toujours en masse. Faut voter. ni ñi bul sonn dañuy genn. ñoom ay jambar lañu non non non non non Li wax di kay sama sœur yi dama len di ñaan kérok bu len bay sen jëkëri yi Lolu moy wax ji mais pour ndax jigéen ni dinañu genn. jigéen ni dañuy genn. nyom lu ragal amuñu lu ñu ragal non ni ragalu ñu Macky Sall les femmes sénégalaises n'ont pas peur de Macky Sall parce que les femmes sont conscientes

mais pour ne ndax ni de man ni moi mon problème n'a jamais mon message n'a jamais été pour les femmes sénégalaises parce que si sénégalaise sénégalaises, yi bi comme ni ma la ko waxee ñi baax ci ñoom ñoo gën ci bi ñi doy war ci mais lan mo tax vous ngeen yaakar ne ngeen am Touba? lan mo tax tay ngeen yaakar ne am ba histoire yaayam mo jappal papam sakket ba suba ci taw defena lolou l'histoire nous tous on le dit tay yana ngi yuxu tuba Touba tuba Touba aduna bi yëpp ngi jeufru seigne Touba mais <laughs> mais bu len yaayam la femme la mama de seigne Touba mo jappon sakket ba fajar parce que jeukeram daf ko ko jàppaloo elle pouvait tout simplement la laisser dire que waa ji na ma fi mu dem mais sa braverie mu japp ko fanaan ak mom loolu ñaata góor a ko man jàppal góor ne ko léegi mu jàppal la saako suukar boo ñëwee dix minutes doo ko fa fekk mu taxaw day ne waay waa ji yàgg na waaye son naa mu waddal saako bi dem yoonam ci man ba ci man sama jabar yenn saay bu ma jàppaloo kudd duma ko mën a jàpp mais man bu ma ko jàppaloo saaku xorom dina ko jàpp dix ans taxaw di ma xaar billaay wallaay tallaay moo tax li mu jur yëpp dina barkel moo tax toujours may ñaan rek yàlla Yalla continue ñoo dimbali ci suñu société bi dooleel ñu parce que ces femmes braves qu'on a wallahi azim yalla rek yalla rek mais budul affaireu yalla ken du leen manal dara parce que vous êtes braves. la femme sénégalaise est brave la bonne femme sénégalaise y a aussi la mauvaise comme ci société bu né Sénégal lu fa baax moy gëna a baax lu fa bon li am solo te sénégalais yëpp war ko xam te mu doon li nga xam ne moom mooy racine waxtaan bi nañu génn jàmmaarloo ak Macky Sall yeneen yëpp ay détails la ñoom ñëpp ay complice lañu député doomaraam yooyu yëpp ku nekk jàpp na caabi kër jàpp caabi oto il s'en fout de ce qui arrive au sénégalais ma ne la exemple bi may joxe mooy sama exemple Wuri Baylo le PD député de Vélingara dem len ngeen xol ko peesekatu gerte kerewaan bu Dakar mamam bobu pël le bu meuna le plus grand voleur de la terre budul moy ay jabaru jàmbur xéssal day xéssal sax waa pour te dire domou kharam bobu mané la tekki wuñ dara wuñu dara ce qui veut dire que ñun ci ñun lay dépendre légui rien à voir avec ce que les gens disent bu leen lijjanti li nit ñi di wax ñun nañu genn rek ñu jamarlo ak Macky Sall vive Macky Sall amba Macky Sall lolu sen problème la ñun nekkuñu fi di vie ou amba on n'est pas là pour ça ñun nekkuñu fi pour vie wala amba dedet, dedet yalla duñu atte ak mom de xujja ñun ñoy atte suñu bop ak mom yalla bo deeyee la yalla bo deeyee bo démé bo déparé dem ci beneen côté géej gi ci ngay gis yàlla mais ci côté bii li fi ne yëpp yaa koy lijjanti mi ngi mel ni tey boo fayul sa luwaaye wala fayuloo sa impôt kër ni ñuy ñëw génnee la sa kër yàlla xam nga du la yónnee enveloppe yàlla du yónnee kenn enveloppe pour ñu jàmmarloo ak Macky Sall yàlla yenn saa yi dafay teste ay doomu aadama ma ne la les les les les les les esclaves de bani Israël la yàlla daf leen yónnee eh, nabillahi Moussa pour mu nekk seen général rek ànd ak ñoom xeex mais dañu xeex pharaon dañu jàmmaarloo ak pharaon boo jàmmaarloowul ma ne la seule la bataille libère il faut que ngeen xam ne révolution rek moo mën a libérer révolution rek rek rek moo mën a libérer révolution boo ko deful ci dëkk doo am jàmm révolution bi mën naa tuuti parce que ñun ñëpp bu ñu yeewoo suba jubal palais nee naa leen député euh, forget it militaire police gendarmerie yu ndaw yooyu mënuñoo rey ñaari picc mën nañ leen jàpp ñoom ñëpp ñu dem dugal leen ci biir kaso bi taal leen fa c'est ça du ñu sonal kenn policiers yi ak suñu frères yi ak gendarme yi bu tàngee ñoom dañ lay jëggal tali bi nga dem jàmmarloo ak Macky Sall maa leen ko wax palais boo fa demee ñaata nit a ko wër ñaata nit ñoo wër palais ñaata nit non mais ñaata nit ñoo wër pale ñaata nit ñoo wër pale ña mais fukki nit waruñu palais mais attends quand même sénégalais bu tago. je dis que Mirmi, mi buñ koy def synchroniser ne dites pas bonjour ni bonsoir voilà ne dites pas bonjour ni bonsoir dañuy dem jàkkaarloo ak Macky Sall c'est tout loolu rek moo ñu mën dindi ci li benn dëkk ci aduna bi émergé sans révolution amul y en a pas amul fenn ci aduna bi dem leen ngeen lire histoire aduna bi soit nak Pikir, xam nga nga dem ci docteur mu ne la da nga pali soit ma piqûre la wala nga xaar benen 2 semaines nga wéral sa bop ma jox la ay comprimé ci yow lay dépendre nga juutu mu ne la ko ciu ci tat ben yoon mettit bi doon ben mu jeex wala nga tok fa ngay jël ay comprimé di jël di jël di jël pour 2 semaines à 15 jours donc révolution bi man nañ ko def suba du ñak bu ñu xaaroon dix ans aussi du ñak donc ñu def ko suba mu jeex aduna bi hala gasi ñepp nek ci jamm